suñu njëbal ci Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul eh, tey ñaanal it kii nga xam ne tey moo ko fi nekkal mooy sëriñ Muntaxa Mbàkke yal na fi yàgg lool ci ànd ak wér eh, foofu sax daa fi taxaw tuuti may xamal ne sëñ Muntaxa bu fi yàggee yoonu murit fa ma buggee fa mu bëgg a yegg dina fa yegg incha allah kooku ñëpp ko war ñaanal Mbàkke Balla Aysan sey euh, nag muy bis bu particulier ci màggalu julli géej gi muy loolu ñuy wax CRD te le président de la République l'État du Sénégal accordel ñu ko vingt-huit ans chaque année dina ñëw fii ànd ak gouverneur de la région de Dakar ñu saytu liggéey bi ñu xool nan lañ ci mun a jàppalee ñu dugg ci ak jàmm génn ci ak jàmm am ci ndam mooy yëgal nag euh, euh, mbolo mi ne tey bis bi wax naa ko ci bureau bi wax naa ko ci région bi yàgg naa fi ñëw di assister waaye bii ma gis dëgg dëgg fi yàlla bu bees tàq la ci bees ci présence n'est-ce pas parce que total des acteurs ñi nga xam ne dinañ liggéey ci julli géej gi waaye itam seen engagement sans faille pour la réussite de cet événement kon nag euh, ñi ngi sant bu baax gouverneur euh, di di ko ñaanal mu yóbbul jottal ñu sant le ministre de l'intérieur ministre yóbbu ko ci le chef de l'état le président de la république Macky Sall ndax dëgg fa yàlla dëgg fa yàlla julli liggéey gi fu mu yegg am na liggéey bu mucc ay bu mu ca liggéey loola je suis témoin parce que je suis là depuis le début waaw hmm. waaw ñu li ñu mën a xaar mooy euh, d'abord ni nga ni nga ni nga ni ni li gouverneur wax euh, engagement bi nga xam ne jël nañ ko ci vraiment la gestion de du site loolu bokk bokk c'est un premier cas mais deuxième cas aussi mooy xam nga tout le temps chaque année dañuy def ay thèmes euh, ren euh, puisque le pays avait à traversé des moments un peu difficiles on s'entend on s'attendait au pire d'ailleurs waaye yàlla dimbale nañu ba gisuñu jàmm rek a am ñu war a wax ci jàmm ndax Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul euh, moo ko wax am na benn paradigme ah jàmm moo féete lépp kaw Euh, itam du ñu fàtte lii nga xam ne ku tedd ki defal nañu ko muy sëñ Muntaxa Mbakke boole ñoog isbu yi man je dis isbu yi c'est les techniciens la Mouridia waaw ah, lii moom loo lu lu yéeme la dëgg dëgg fel la dafa wane rek dayo Cheikh Ahmad Bamba waa isbu te na nañu ko mënee nan nañ amee xam-xam noonu amee yéene ah, fépp foo xam ne mbootaay moo xam ne ñu ngi liggéey ci sëñ bi ñoo ñu ñëw jàppale ñu